xaaruma woon yeneen joueur euh, daanaka ku xam Aliou Cissé dafa am benn logique bu muy bu muy doxalee depuis bu mu fi nekkee ba léegi euh, su may am li may wax rek c'est que jot na quand même parce que man je ne veux pas m'appesantir sur la liste liste booy tànn forcément ñoo éliminé di nga am ñoo ñoo yóbbu ñoo yóbbuwul toujours day indi ay ay jii yu jaax day indi ay wax amul problème si côté boobu France boo gisee par exemple jël na te pourtant euro lañ jëm. jël nañ ba jëli ingolokante euh, Kanté. xel xalaatul woon ne peut-être dina ko jël mu ngi si Saudi League kooku ce n'est pas fondamentalement le problème tant que duggoo ci terrain <coughs> mais euh, man je préfère plutôt mettre le curseur sur l'avenir parce que wax ji bu mu ñu bëri ñu ngi wax Cheikhou Kouyaté ñëwul ñu bëri ñu ngi wax tel ñëwul joxe na ay exemple pourquoi wala motivation lu tax ñëwul mais man pour man euh, Sénégal war na déjà tàmbali anticiper relève bi. Hmm. te waxtaan wax dëgg rek ci la. on ne peut pas continuer avec cette équipe bi nga xam ne moom moo gagné woon deux mille vingt deux ñu yaakaar ne dañuy dem deux mille yaakaar ne dañuy dem pour participer à une phase finale de Coupe du Monde mënut a nekk. donc heureusement mu ngi commencé di greffer de plus en plus ay jeunes. Hmm. donc soit ñi fi nekkoon ñoom ñooy décider d'un seul coup. de prendre de tirer leur révérence après ñu retirer ci équipe nationale bi. wala moom mu jël ses responsabilités. pour dugal ci équipe nationale bi ay jeunes parce que man mënuma comprendre tey Sénégal euh, loo xam ne euh, ñu ngi ko doon euh, lu ñuy réaliser en trois cent soixante cinq jours mm-hmm. maanaam gagné U17 Afrique gagné U20 gagné CHAN et tey jii ñu bañ a nekk dans cette dynamique de relève parce que bëgg naa gis ay joueurs yi nga xam ne mm-hmm. U17 lañ nekkoon léegi ñu commencé dugg équipe nationale Sénégal keroog commencé nañ ak Amara mm-hmm. qui est un joueur boo xam ne képp kuy sénégalais mu ngi koy ñaanal jàmm parce que c'est presque ñu ngi ñaan yàlla aussi loolu mu confirmer aussi le terrain c'est la relève au cas où Sadio ne ne serait plus là beneen aspect bi c'est la décision de certains joueurs de partir en Saudi League loolu aussi il faut que ñu wax ko euh, c'est la vérité soo demee ci dëkk yooyu rigueur bi détermination yi am si yeneen championnat yi dootoo ko amati foo faut qu'on se dise euh, yenn saa yi à un moment donné euh, yenn yenn vérité yi parce que mënul nekk la même chose. Mhm. fi may jeexalee c'est au niveau de au niveau de au niveau de l'attaque. Mhm. parce que tey euh, moom Aliou Cissé heureusement sax wax na ko. année bii dafa nekk année boo xam ne dafa xaw a difficile ci joueur Sénégal yi parce que boo xoolee Premier League à ki kii nga xam ne moom mooy. Euh, Nicolas Jackson amul kenn ku ci sortir du lot et foofu sax man je ne suis même pas d'accord avec les journalistes qui disent que il a fait mieux que Didier Drogba. Mhm. boo nekkee journaliste booy wax benn affaire da nga koy étayer da nga koy teg ci ay faits. Mhm. Didier Drogba premier transfert am mu jógee. Marseille Marseille bu dem Chelsea bu dem Chelsea première année bi ñëwul pour nekk meilleur buteur je suis désolé. d'ailleurs il mettait le dossard numéro 15. Mhm. rappelez-vous il jouait pivot da doon jox Lampard Lampard di dugal Lampard moo nekkoon meilleur buteur. effectivement mu année bi ci topp. Mhm. il est le tarif c'est 20 jëm kaw. Mhm. pas ay 14. ay 17 c'est ça. d'accord alors boo xoolee suñu effectif bi nii yëpp. il y a des à 3 buts. Mm -hmm. puis, donc le ratio il diminue les gens perdent aussi au niveau de leur euh, match yu ñuy joué match.